partager la vidéo di nuyu Jaraaf Sow le grand soutien soutien de Macky Jaraaf maa ngi ziar ana appsi sama sister di nuyu képp koo xam ne yaa ci live bi Fallou Galas Thiaw la gaynde di jubanti le lion maa nuyu mon di la ziare bu baax partagé vidéo bi dugalal groupe bi dugal ko ci groupe WhatsApp yi di nuyu Al Diallo Al Diallo mon lay ziar bu baax donc euh, di leen ne dalee nag jàmm si live bi ñàkk jot rek a mais li ñu war a wax ba tey bëri na c'est ça maam suñu taa la <laughs> non Youssou wooy rek la non moom yéen xam ngeen nu mu demee man côté musique c'est chanteur côté politique bon bokkuñu tellement vision mais on a tellement dansé sur ces sons là à Dakar il quelques années imam maa ziar imam namm la imam maa ziar bu baax a baax di la bëggee di bëggee bu baax Penda Ndiaye may sister régin kin régin waay partagez leen partagez leen partagez leen <laughs> ku weddi rek na yónni maamam mu julli ci géej gi <laughs> ku weddi na yónni maamam mu dem julli ci géej gi pour mu clair mam bamba man de sama maam julliwul ci géej gi <laughs> sëñ Bamba rek ko fi def macha allah di doomu Sénégal di suñu fierté. Aïssatou Cissé Fall may Cissé la grande dame maa ngi lay bégee naa la jaraaf soo maa ngi lay bégee on n'a pas le même bord ku ci nekk man dama lay respecté ci li nga gëm fonk la ci li nga gëm ba ba nga tegee ci loo xam ni du intérêt Sénégal ci lay doog a wax ci yow man du ma wax ci nit ñii gouverner lay waxal man Macky Sall lay waxal <laughs> su ma waxee ci nit rek daa fekk daf maa wutee buzz ba ma mujjee ci sonn mu énervé ma ma craqué un jour mais du ma wax ci kenn du ma wax ci kenn ku dul Macky Sall du ma wax ci keneen ci ku dul ku ñu jox alalu askan wi mu koy doxalee ci ay anam yoo xam ni selul te avec le respect qu'il aurait dû en respectant la dignité humaine autant que faire se peut tey damay wax ci CNG de lutte docteur Aliou Sall laay waxtaanal laa bëgg waxtaanal tey parce que moom mag on lui doit du respect mais il doit du respect aux Sénégalais j'estime que son comportement manque de respect aux Sénégalais looloo tax may wax ak moom tey partagé leen vidéo bi Khalifa yow sama sama nit nga yow man maa la bëggal sama bopp imam su ma la gisee dem ci live bi damay kontaan Marie Pierre Noël kooku man kookoy sama genn wàll kooku sama genn wàll la <laughs> kooku sama seex la kooku su ma waxee balaa ma paree xam na fu ma jëm <laughs> balaa ma yéggali sax xam na fu may fi ma fi ma lim fi may waxee loolu ànd bu yàgg moo koy moo koy ànd bu dëggu ànd bu yàgg ku jël sa taawam tuddee ma ko nga xam ni loolu du ay caaxaan muy sëy ma doon ma doon témoin <laughs> moo tax keroog ma posté le vidéo pa ku nobaate kooku <laughs> ay waay nañ leen déglu Aziz maam Bamba ndeysaan Aziz yow la sa maam julli ci géej gi maam Bamba moo tax moo tax même catholique yi même catholique yi di ko paye di ko xolal di ko honoré catholique bi ma doon di ko honoré catholique bi ma doon fonk ko gëm ko catholique bi ma doon bëgg ñu jël ko di ko teg ci kaw a kaw parce que nit ki amoo lenn loo xam ne les identités remarquables ñi nga xam ne ñoo tax ba dugg Sénégal ñu leen koy dégg ñu koy dégg partout dans le monde te sëñ Bamba daa def lu rëy ci panafricanisme def ko ci construction de l'identité noire def ko ci euh, li nga xam ni tey image doomu Afrique taxaw jàkkaarloog tubaab bi résistance ne serait-ce que pour ça nous lui devons considération respect si ce n'est vénération partagez leen waaye ma Bamba gisal gisal lii ma may ko maa ngi koy may murid yëpp di ko may donc di leen renouveler sama affection ak sama respect pour yéen waa Touba xalif général ba ci suuf ak képp ku gëm sëñ Touba jëlal desa te muy dëgg leen vidéo bi dañ may rest dañ ma restreint dañ may restreint dañ may xeex kon boo leen gëmee li may wax lu am solo Sénégal da leen ma partagé waaye ñoo ngi seeni i groupe di yëngu les cafards les batraciens c'est ça roy du nuroog pire <laughs> partagé leen ah ma taxaw dégg liir benn kafaar am na kafaar bu tudd ak Diaga Diop kafaar benn batracien may leen nga taxaw tuuti parce que ma lii profité nga ba ñëw nga tax di profité aussi <laughs> yéen waa doo jéem a ndax nga teg teral sa waajur bu dee profité yomb na utiliser sa sa brain nga profité bañ a toog di jooy keneen ku profité yàlla sax daf ñoo sant ñu profité ndax daf ñoo may ñu ñëw dudd mu ñëw jël asamaan si. def ko mu am la lune def ko mu am le soleil may ñu bakkan may ñu air ne ñu profiter def leen lu baax lii ngeen lii ma leen jox def leen ci lu baax nga taxaw fii yow profiter nga yow yaa leen togox nit ñu togox yee sonnal nit ñu baax ñi léegi ñu avancé ma ñëw ci CNG bi rapidement parce que damay liggéey aw ma jot waaw di wax ni que euh, docteur Aliou docteur Aliou euh, Sarr avec tout le respect que je vous dois respect bi ma la ameel parce que yaa ma mag te dañoo yar euh, ci nit ki ngay jox ca ku la mag may dox ci loolu de tout temps noonu lañ ma yaree sama yaay ji toog lool ci loolu la ma tàggat tey bu ma ñëwee di wax ak yow docteur Aliou Sarr c'est parce que trop c'est trop ba ma nekkee INSEPS man en tant que étudiante laa la gis nga nekk présidente président wu CNG boo leen amee làmb ngeen tëj buntu yi ñun dañuy forcer euh, dañuy contrôler ñu door a dugg pour jàng de deux mille de 1994 ba 2020 xalaat nga ni que yow bu fekkoon ni liggéey nga def nga la nga war a def est-ce que lutte war na toog tey di dépendre ci yow. ñaata at la de 94 à aujourd'hui plus de vingt ans plus de vingt ans yow amoo amoo coule la relever ça veut dire que tu as échoué INSEPS boobu nga jàkkaar lool c'est des générations et des générations de techniciens du sport maîtrise bac plus 6 des gens qui ont appris la science du sport apprendre administration du sport ñu ay organisme international ñëw tey ay organisme international internationaux ñëw am ay partenariat avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique de l'éducation physique et du sport nga am opportunité former les gens même les lutteurs nga war a jël lutteur yooyu war leen wutal plan de carrière quel est le plan de carrière d'un lutteur sénégalais pour vous dire que vous avez échoué le lutteur sénégalais quel est son plan de carrière sportif il n'en a point foofu mooy fi may njëkkeek yow parce que docteur nga donc man li ma lay wax dégg nga ko profane yi ko déggul yow dégg nga ko quel est le plan ma lay poser le cette question là et j'aimerais que tu y répondes que vous y répondiez je dois vous vous voyez parce que miinuma xamuma la te sa euh, yaay sama aîné quel est le plan de carrière du, du lutteur sénégalais il n'en a point vous n'avez pas travaillé à ce que lutteur sénégalais bi am plan de carrière et boobu loolu mooy seen premier échec lutte c'est un sport boo xam ne tey yóbbu nga ko loolu c'est votre mérite yóbbu ngeen ko niveau boo xam ni sape paie énormément d'argent mais bu ñu paree seen carrière lutte lan la ñuy liggéey damier dañuy toog di damier dañuy toog di tabax ay kër pour louer ko non vous leur avez même vous leur avez comme ni ñuy préparer sportif de haut niveau ñu am plan de carrière cest a dire que bu ñu jógee ci lutte am leneen loo xam ni ci la ñuy nekk loo xam ne day nekk continuation wu seen carrière sportive boobu nga xam ne def nañ ko ñu jox leen yéen ngeen gérer ko pendant des une vingtaine d'années boobu nekk manquement bu grave boo xam ni yàgg naa ko déplorer gisuma plan de carrière euh, lutteur sénégalais benn deuxièmement tey jii vous avez un problème sérieux et en tant que médecin vous avez failli le dopage dans la lutte le dopage qui est flagrant avec ses conséquences conséquences du dopage sur ces jeunes lutteurs dans quelques années ajoutez à cela le fait que amuñu plan de carrière et vous êtes mais non non non c'est le CNG qui doit gérer ça et maintenant donner des directives aux écuries. Reste contraindre les écuries à respecter des règles, des mois, des moments euh, sport dañ koy organiser mais la lutte au-delà de diw jox na ko bind nañu contrat signé na promoteur bi jox na leen contrat mais y a rien et c'est votre euh, faillite c'est votre faillite parce que lutte dafa waroon am plan de carrière mu am CNG bi def ba en sorte que lutteur bi boo pare dafay am am na concomitamment avec sa carrière sportive ñu ngi koy préparer pour que ëllëg mu mun a par exemple nekk un businessman xaalis boobu mu gagné mu am nu mu koy investir ñu jàngal ko ko ñu jàngal ko aussi nu muy gérer sa santé après toutes ces années de doping déjà que le dopage est dans la lutte te vous ne faites rien contre ça y a le dopage est flagrant et quelles sont les conséquences sur les jeunes demain ces jeunes lutteurs loolu docteur loolu moo na waroon nekk sa priorité sa priorité waroon na nekk tey jii vingt ans après nga am CNG boo xam ne soxlawuñu la CNG lutte waru la woon soxla tey yow docteur Aliou Sall partagez partagez la vidéo docteur Aliou Sall la fait que tey jii le CNG ait besoin de vous c'est que vous avez échoué vingt ans pendant vingt ans yow nga nekk ci benn structure amoo relève yow nga indispensable ça veut dire que tu as toujours tout vingt six ans dangaa toujours jël lépp def ko téye ko sa loxo nii nii c'est-à-dire dara du échappé man la man la man la man la partagez leen vidéo bi vous savez que je suis restreinte les gens ne voient pas que je suis en live et on a euh, euh on a saboté mon compte mais li ma la bëgg wax mooy docteur pour en arriver surtout li déclenché tey ma ne man wax ci lutte davantage ces jeunes aujourd'hui cette vague de jeunes sénégalais qui pensent que lutte rek moo leen mën a sauver am nga ci responsabilité te au-delà du miroir aux alouettes maanaam benn genre benn genre euh, faux faux espoir yi nga xam ne suscité ngeen ko ci jeunes yooyu au-delà de ces faux espoirs amul réellement concrétisation carrière sportive dans la lutte à part l'argent que ces gens amassent pendant un certain moment vous il n'y a pas le suivi sur le plan de la santé j'en suis sûre que defu leen sax ay étude pour voir par exemple les anciens lutteurs qui s'adonnaient à ces pratiques ñu mel ni ay Tyson ak ay ñoom Moustapha Gueye est-ce que ban impact le produit yooyu produit dopant yooyu am si ñoom est-ce qu'il ne faut pas interdire ces produits-là muy deux point yu ma soulever euh, mon frère Assane Sylla maa ngi lay ziar bu baax beneen point bi may bi may wax mooy tey boo demee ci àdduna si foo dem nga dégg box taille box taille la lutte sénégalaise n'est pas moins riche que la boxe si le Thaïlandais on pu fa ak fëlëg fayda avec les dirigeants qu'il faut fexe ba boxe thaï nekk tey ci sport Amérique foo dem ci àdduna ñu koy pratiquer lutte sénégalaise mënoon na nekk tey un bu ñuy pratiquer partout dans le monde mënoo ko tu as échoué à cela mais tu as parvenu quand même tu es parvenu à te maintenir yow kese yow kese amul kenn koo xam ni yow jàpp nga ni Sénégal mën na manager la lutte et xoolal yow yi ma la soulever trois points yi ma la soulever de grosses lacunes de grosses lacunes en termes de management parce que pendant 26 ans, nga gérer une structure, tu n'es pas capable de faire que cette structure-là sorte des frontières du Sénégal et de la Gambie, ça veut dire que tu as échoué. Et c'était très possible de professionnaliser cette lutte sénégalaise et d'en faire une discipline qui soit acceptée au niveau olympique, même bu nekkul olympique, au niveau international. Comme la boxe thaï. Boxe thaï mbër ñun suñu nu ñu gëmee bëri ñoom noonu lañ ko gëmee angle koñ boo dem bopp koñ boo dem am na benn plateau bu ñu def pour xale yi guddi guddi yi ñi ñu ne fa di di di di def seen box taay boobu Sénégal ak ni ñu bëggee làmb mënoo fexe 26 ans que Sénégal ñu professionnaliser def ko mu nekk à aux normes olympiques alors que tu as des tonnes de professionnels de sport juste à côté en face de toi INSEPS mu ngi nekk juste en face de vous vous n'avez jamais pu utiliser ces ressources là parce que certainement jàpp nga ni que ressources yooyu compétition la ñuy nekk pour yow ton siège xalaatoo Sénégal xalaatoo sport sénégalais xalaatoo lutte yow yaa ngi xalaat sa poste yow kese pendant vingt six ans nga toog tey ngay dàkk des gens yoo xam ne c'est des gens qui ont un bac plus six des gens yoo xam ne ñoo lay atteel say lamb nga koy nga leen di fay ay dix mille francs ñuy wax yow nga am tupe dàkk di dàkk Sitor Ndour ma xam ko woowuma Sitor waxuma ak Sitor gëj naa wax ak Sitor Sénégal pour vous dire kenn influencé wu ma dëgg rek lay wax parce que mënoon naa woo Sitor Ndour balaa ma dugg ci live bi mais dama bañ sax émotion di dugg ci sama wax dama bëgg objectif ku def bac plus oh Monique technique <laughs> you probably forget me but I came to your salon and you made me so beautiful <laughs> I was living in Italy at that time Monique I love you I love what you doing great woman euh, li may leen di wax yéen ñi tey li ma leen di wax ni tey ah dafa nekk ci li nga xam ni mooy nu Sénégal li nga xam ni moom la ñu war a jubanti Sénégal mooy des gens qui arrivent à un poste et qui se croient indispensables et qui restent là-bas jusqu'à leur mort les jeunes sont relégué xale yi am talent xale yi ñu formé il y tellement de managers au Sénégal tellement de jeunes qui ont fait les sciences du sport qui sont allés à gauche à droite même en Suisse dem yor yeneen diplôme mën a manager la lutte mais jël leen depuis vingt six ans mënoo ci woon jël kenn won ko les rouages nekk ak moom co-managing ba nga xam ne tey yow waratoo taxaw fii sax ñu lay dégg ngay wax ne dangay am ñooy dàkk c'est à plus loolu mooy sa échec bu gën a mag ma Sitor Ndour man dama ko xam en tant que collègue fréquenté ko du tooñ du dugg ci lu yoonam nekkul du ñàkkul fayda du waxantu du dox ci caaxaan loolu mën naa la ko man caaxaan musuma gis Sitor ci caaxaan et tous les collègues ou bien du moins mes collègues prof anciens professeurs d'éducation physique dinañ la wax Sitor xamul caaxaan kenn yabul Sitor boo dàkkee Sitor c'est parce que tu as parce que li la laaj li ñu li la arbitre yi laaj c'est le minimum te bu fekkee ni appliqué nga sa bopp di di li nga appliqué arbitre yi kon yow tey doonoo woon nekk ba tey le président du CNG euh, de lutte sénégalaise juste pour te dire bàyyi leen injustice bàyyi leen jaay doole tegoo ko fenn déjà bu fekkoon ne lépp a ngi dox normal waroo am capacité radier arbitre yooyu yow comme Il vous devriez aujourd'hui être soumis aux normes internationales si vous aviez travaillé. La lutte sénégalaise devrait figurer au panthéon des, sports de combat. Parce qu'on a tout pour ça. Mais c'est votre manque d'imagination, votre manque de créativité, votre manque de volonté et votre propension à vouloir tout garder pour vous. Votre propension à vouloir tout gérer, à être, à contrôler tout. a etre celui ki fait qui défait celui qui ki nga xam ne mooy buum di bumi muy feebar boo xam ne suñu cerveau yi la nekk buum di bumi bëgg tout le yow kenn kese yaay wax yaay def yaay mën mën a mën a mën a sitoor li ak CNG lu ñu la laaj dafa leen dañ ko yelloo mënuñu toog di jël risque di nekk ci biir ay mbër yuy fayeeku de centaines de millions yéen ngeen ciy coupé ay centaines de millions mbër bi bu mbër bi bu tisoolee sax ngeen daggal ko ay centaines de millions mbër bi bu bu bu bu bu bu gestoo xool gauche ngeen daggal ko centaines de millions def seeni i kees la arbitre yi nga xam ni ñoo tax ba match yi di am ngeen ne arbitre yooyu duñu duñu leen di fay kor doo leen fay correctement foo ko teg et c'est des Tu es médecin. Médecin, c'est combien C'est bac, euh, bac plus 7. Il y a une hiérarchie pour les fonction publique. Alors, pourquoi ce manque de respect Bah, radier, Quelqu'un qui a servi la lutte pendant plus de vingt ans. Bah, ma chamé, surtout, manque de samedi le sacrifier. ñaata si sa vie de famille la sacrifier ñaata si sa carrière en tant que sportif la sacrifier pour nekk au service de la lutte di leen arbitrer seeni combat nga xëy benn jour rek waaw raje naa ko foo teg loolu au nom de quelle puissance au nom de quelle injustice et quelle démesure nga war a yow xëy dal di ne si toog dàq nañ la parce que da ngeen ne dañ leen war a yokkal loolu mooy lan foo leen ko teg foo leen teg loolu mais bàyyi leen injustice waaye te ngeen bàyyi seen méthode ancien temps yooyu année 60 benn nit mooy nekk ci kaw nekk patron ñëpp di ko tëyal ay saagam Sitor du la tëyal saag Sitor ne va jamais te tenir euh, euh, ta valise c'est pas le genre c'est pas le genre c'est un Sérère digne il fera jamais de galipette pour te plaire mais il te dira la vérité et dans le respect li ma soof Sénégal ku ci xaw a am tuuti benn benn statut rek dootul ba euh, day bëgg nit ñi buñ koy waxal dañ koy ràmbal wala di ko defal ay galipette wala di ko defal ay courbette foo leen ko teg lu dul yoon du yoon lii du yoon li njëkk a ñàkk nekk yoon c'est que tu sois toujours président du CNG de lutte man ak ba ñuy ñun ba ñu def suñuy anbal suñuy match maag samay sœurs yi sœurs yi nekk nii di seetaan live bi fekk yaa fa nekk ba tey ji ñun nekk nañu ay màgget mënatuñu sax daw mënatuñu sax sport yow yaa ngi foofu ba léegi di gérer loo xam ne yow kese yaa nga jàpp ne yow kese yaa ko mën a gérer nga teg ko fan. et puis ñoo yow ñuy wax ngay dàkk ay ñoo xam ne ay 10 000 francs nga leen di fay par combat alors que ces komba se gens qu'ils qu'ils sont en train bi seen bakkan xaj na ci. seen bakkan xaj na ci atte bi parce que gis nañu comment c'est dangereux otan sur le plan danger matériel que mystique ñoom ñoo koy jël. ñoom ñoo koy dékku yow da ngay toog ci gradé poussière du la laal tu prends les honneurs tu prends le tu as le beau rôle mais ceux qui font le sale boulot en bas tu leur paies dix mille et après ils n'osent même pas se plaindre après ils n'osent même pas dire quelque chose foo ko teg ko teg mais revenez sur cette décision rapidement parce que vous na tegul leen ko fenn elle est injuste et elle montre tout simplement les limites que vous avez au niveau le manque de démocratie interne au niveau du CNG, le manque réellement de vision, le manque de générosité qui fait que un vieux peut gérer une fédération pendant 26 ans. xale yi génn nekk ay manager depuis presque depuis l'an 2000 ba tey ñu ngi toog topp ci ginnaaw paa bi avec ses vieilles méthodes tubaab yi ak ses vieilles méthodes depuis xawma ban at mu ne moom rek moo ko mën moom rek moo mën a yor CNG moom rek moo mën a yor la lutte sénégalaise c'est quoi le cim les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables cimetières yi sont pleins de gens qui croyaient que ñoom dañoo indispensable ba ñu demee la yëf yi gën a dox commencez déjà yow nga passer la parce que boo passé relève manager yi ñu mën a la lutte sénégalaise bëri na ñi mën a révolutionner la lutte sénégalaise bëri na et y de travail à faire pour que la lutte sénégalaise mën a nekk une discipline olympique par exemple pour que la lutte sénégalaise puisse être exportée hors des frontières de la Sénégambie lutte sénégalaise dafa waroon na dépasser fii boxe thaï nu mu fi nekkee am ay salle partout fii ay combat sur le plan international les grands sponsors waaye da ngeen tuuti bët yéen sponsors yi ñu ndaw yooyu ngeen am Sénégal ngeen defe ne fa la waroon a yem tey ji ñoom Balla Gaye yooyu waroon nañ leen mën di exporter fii loolu sax moom ma njëkk a lu tax vous n'avez jamais pensé à exporter créer ay événementiel mais parce que éco ancienne école koj koj koj koj koj koj koj la vieille méthode toujours koj koj koj koj koj dara du avancer dara et vous êtes là indéracinable au nom de quel au nom de quels arguments rien du tout sauf que maa fi newoon I was here first maa fi njëkk a nekk I was here first loolu rek mooy seen argument ma ni cette radiation elle est injuste elle ne vous honore pas elle est injuste parce que c'est des gens qui ont sacrifié des années de leur vie ay années de leur vie la ñu sacrifié pour la lutte pour que vous puissiez euh, gagner autant d'argent arbitre bul fàtt ni ñoom ñooy décréter ay ay temps pénalité yooyu ngeen def seen kees yooyu pana des années te duñ ci am dara waaw donc buñ la nee nga yokk leurs honoraires c'est le minimum manque de générosité boobu pour lan c'est quoi ça ce pays là est pourri quoi franchement saa yoo am na benn waay boo xam ne jógete na fële jaay doole beneen benn xool que lii muy def nii jaay doole la mais docteur Aliou revenez à la raison et surtout sachez que les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables vous avez fait votre temps vous avez donné votre contribution permettez ouvrez les portes permettez à d'autres jeunes de venir relever le challenge et de donner au Sénégal autre chose que ce que vous avez donné au Sénégal jusqu'ici te mën na nekk lu mën a nekk la te lu war a nekk la te noonu la société di évoluer noonu la discipline bi di enrichir wu la ñuy permettre lutte sénégalaise génn frontière u Sénégal bi noonu la ñuy permettre que les lutteurs sénégalais puissent s'exporter ailleurs que li ñuy seen seen seen carrière du yem Sénégal kese ñu ñëw fii mënoon nañ fi ñëw di am ay combat avec des américains et la multidis la pluridisciplinarité qui aurait dû être développée par vous que lutteur sénégalais bi mën a def yenn ay yeneen façon sport ñëw di def fi ay combat yéen ngeen di ñëw fii di def événement di créer lutte sénégalaise fii jaay ko de façon ba nga xam ne Las Vegas bii ngeen di ñëw def salle comble lutteur sénégalais yi ñëw ak seen i tëgg seen i fecc seen i culture jaay la culture sénégalaise jaay la lutte sénégalaise qu'est-ce que vous avez fait de tout ça rien du tout rien du tout tey jii nii introduction la rek tey jii introduction la comme ni ma doon defee temps yu may live lii introduction la docteur Aliou Sall Sarr ak CNG de lutte sama live bi tey introduction la régler le problème la sinon dinañu ñëwaat live te dinañu gën a génnee seeni lacunes avec des preuves comparer leen ak yeneen discipline yoo xam ni tey ñu ngi jógee dans des zones comme l'Afrique comme le Sénégal et qui sont devenues aujourd'hui des disciplines olympiques qui tey ji Las Vegas waroon nañ frère imam imam dina xoolal sama sama kii bi sama téléphone sama téléphone lay lay live moo moo 951 bi moo baax imam dinaa dinaa ñëwaat lii parce que lii moom j'en fais mon dossier j'en fais mon dossier du dëgg du dëgg du. du dëgg du yoon mënuma jël appel parce que maa ngi ci sama téléphone maa ngi beneen téléphone bi sax mais dama xaw a dama xaw a xaat imam dinañu def live classique toog sama kër ngeen dugg yéen ñëpp ngeen dugg ñu wax ci jotul ma sama sàkk ñu wax ci CNG de lutte bi ak docteur Aliou Sall ndax Sénégal ñàkk na ay compétences à point ba pendant vingt six ans ben un seul individu mooy décider du sport national sénégalais et puis autorités yi toog di ko y' a pas de relève y' a rien une seule personne di buum di buum yi dàq ay arbitre arbitres yi c' des gens qui ont bac plus six yow docteur nga bac plus sept nga def un an nga am de plus d' études vous êtes dans la même hiérarchie quand vous entrez dans la fonction publique vous êtes tous les deux yow ak Sitor hiérarchie A Euh, A1 hiérarchie A1 rawoo ko ci hiérarchie euh, fonction publique tu lui dois plus de respect un minimum on ne peut pas radier quelqu'un comme ça après ay vingt sinon ba mu lay servir la lutte sénégalaise ça fait plus de vingt ans ça fait plus de vingt ans j'étais au Sénégal j'étais au Sénégal et vous osez comme ça le jeter comme un malpropre parce qu'il veut qu'on augmente les honoraires des arbitres c'est quoi cette connerie et au nom de quoi dinaa ñëw en live sama gars yi lii band annonce la bande annonce la dinaa ñëw en live dugg ci dossier yi parce que je suis du métier sport je connais très bien les principes qui devraient régir cette ce sport là le management de ce sport là et je sais que vous n'en faites pas grand chose vous n'en faites pas grand cas business da nga ko tu as commercialisé rek da nga ko commercialisé mais la nga waroon boolee commercialisation boobu defoo ko parce que amoo compétence yi te jëloo compétence yi ko waroon a def et avec ça tu oses euh, jeter ce tort parce qu'il a dit que tu dois lui payer mieux il doit être payé payer mieux foo ko teg what the heck mais arrêtez arrêtez le char je reviendrai dinaa ñëwaat ci live bi dinaa ñëwaat ci dossier bi dina ci ñëwaat en profondeur rétablissez Sitor dans ses droits augmentez arbitre yi seen fay muy loo xam ne da leen ko ameel ils vous font gagner des millions c'est le minimum qu'ils soient traités avec décence avec respect Aliou Sarr la lutte du entreprise Sarr et amis ok c'est pas entreprise Sarr et frères La lutte sénégalaise, c'est le sport national du Sénégal et qui mérite mieux. Le sport sénégalais mérite d'être mieux servi. À bon entendeur, salut. dinaa ñëwaat en dinaa ñëwaat en live te ni may ñëwaatee en live du bokk ak ni ma ñëwee tey parce que je vous amènerai les arguments et les éléments qui prouvent que vous n'avez rien foutu à part vendre gagner de l'argent avec euh, avec la lutte le sport national mais vous n'avez pas fait ce que vous auriez dû faire réellement, avec professionnalisme et générosité, vous auriez pu faire mieux. La lutte figurerait aujourd'hui dans le lot des disciplines qui se font à Las Vegas. Le spectacle am nañu moyen def spectacle bi exotisme bi moo ngi ci lépp mais c'est vous qui manquez d'imagination et de volonté. dinaa ñëwaat en live ñu lijjanti dossier lutte sénégalaise au nom du jubbanti Sénégal rek di leen gërëm di leen sant. le devoir m'appelle je dois commencer <laughs> maa ngi ñàkk xaalis depuis mooy wax nii samay affaire yi ñu ngi commencer <laughs> bëggee naa leen bëggee naa leen wallaaw waaye